en tant que mbër Balla Gaye ak Modou Lo lan ñu ngi ñaanal Balla Gaye suma doomu suma xarit maa ngi koy ñaanal ndam dafa sonn ci combat bi di entraîné entraînement yu métti maa ngi koy ñaanal ndam ndax mooy sagu géejawaay Balla képp koy tax ngemb fii géejawaay moom ngay roy koy ñaanal ndam te dañu koy andi ci kàttanu yàlla. beneen bi Modou boobu ba tey mi ngi ci euh, làmb ji di entraînement. waaw ñu gis Balla Gaye dafa defoon gàddaay. waaw ñaari ak bëri ak contour Gris Bordeaux def combat bu am solo. waaw mais Modou moom nee na. Hmm. pare euh, pare euh, pare na comment pare na combat bi daal ci côté yëpp. non Modou Lo moom pare na ci combat bi côté yëpp entraînement na wax tëgg fa yàlla dem na Espagne dafa trois mois. mais dama la xamal ni Balla Gaye depuis boobu ba tey mu ngi liggéey liggéey bu méttee méttee méttee te Balla xam na lu koy xaar. dafa taxaw waa Géejawaay ne dama la ñuy digg roi des arènes te dama leen koy andalaat ci kattanu yàlla. yow am nga gëm-gëm. bu baax a baax a baax a baax a baax barki sëñ Fallou Mbacke. waaw waaw bu baax a baax a baax te dañ koy daan ci kattanu yàlla bu bëree mu daan ko bu xeexee mu daan ko. billaay walaay.